asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois nee naa leen lépp loolu bëgg dañ ciy dox yéena ma ko laaj moo tax tey ma xuus yëmbal ñoo fas yéene waxtaan ak moom ci li xamante ni moom mooy làmb mu nekk koo xamante ni nag super ndaanaan la def fi lu nekk nekk koo xamante ni nekk xale di yëngu ci làmb nekk écurie Pikine mbooloo naam yëmbal nag la dëkk te ñu fas yéene waxtaan ak ci moom. làmb làmb fi mu toll ci carrière ndax euh, dëgg yàlla def na fi lu ne jëli bu ne daan na ko fi muy Tonnerre bu Pikine mbooloo dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu tàbbi ci waxtaan bi champion maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay fils maa lay nuyu di la sagal di la jox sa wàccuwaay di la ziar bu baax a baax. di nuyu waa Yëmbal di nuyu waa Pikine di nuyu waa koñ bi ma dëkk. Mhm. waaw. Tonnerre euh, nga dugg ci lamb euh, le 26 février 2006. Mhm. moom nga dugg ci làmb. Mhm. ñu gis ni nga def 18 euh, combats. 12 mhm. victoires ak li nga xamante ne moom mooy 6 défaites. dëgg la. tey boo doon wax Tonnerre ñëpp xam nañ kan mooy Tonnerre. mais tey Tonnerre mooy kan bëgg nañ ñëw ci li nga xamante ni moom mooy sa vie ak li nga xamante ne moom mooy sa enfance. waaw Tonnerre benn taalibe la rek benn taalibe la bu doyadi. men taalibe bu doye di la nekk xale tamit bu am jom bëgg li muy def gëm li muy def fonk lu muy def waaw. turu tonnerre bi de Pikine la jógee mais yëmbal moom ndàgg lañ ma doon wax ndàgg mais Pikine fa la tonnerre bi jóge sa benn xarit bu tudd Tidiane moom ko tuddee woon. Mm-hmm. waaw ba mu law nii. Mm-hmm. Mm-hmm. boobu dugg naa si làmb boobu laay doo ko dem Pikine mbooloo. waaw. tonné euh, lan euh, moom nu mu ñëwee si man dama am xarit buy bëri. ma doon ànd ak moom muy Amadou Camara. moo fi nekkoon champion yëmbal fii. moo ñu doon euh, yóbbu si mbapat yi léeg-léeg suy dem mbapat ñu topp ko ñu dem dem ba am amour bi ñu dem ba gën ko ko bëgg sax moom mi ñu doon yóbbu si làmb. Mhm. loolu moom dugal si làmb. Mhm. Euh, sa enfance nu demee parce que làmb dafa nekk loo xamante ni en général. Mm. Mm. sa enfance tonel jàngee ko. jànguma école nag franchement. Mm-hmm. waaw tax to ay àndandoo rek. ay àndandoo rek dañ daan dem. syndicat ak dem ñaay xam nga yëmbal moom soo fi nekkoon nekk fi yàgg fi ay ñaay wuti darkase mm-hmm. ay dem syndicat wuti ay buuju yooyu moo lay neex quoi ba jàng bi dana dem ba dootu la dootu la safati yenn saf mhm. mhm. jàng alxuraan. waaw ah, jàng naa alxuraan moom tuuti rek. Mhm. waaw. nee nga da am xarit boo xamante ni moom moo tax nga dugg ci làmb muy Amadou Camara. ñu koy nuyuwaale au passage parce que. def na fi lu nekk. mais tey bu nga bëggee dugg ci bëri da ko doon fooyee. Hmm. waaw dama ko doon dama ko doon nëbb sama yaay parce que bëgguloon ma bëre dama ma daan sant naan liggéeyi waa ci ñëw léeg-léeg damay liggéeyi tax si ma dem bëre ji ñëw xa comprendre nga su ma booy toppee ba sa bunt kër gi rek ma saraxu leen ne leen dimbali leen ngir yàlla ngeen dem ñibbi quoi su ko mère bi yéegee rek daf may dóor wala muy ni ma problème wala mu mere ma te bëgguma yooyu yëpp am suñu diggante booy wàññeeku mm-hmm. mu jigi dem ba ñi muy booy di ñëw ba ci biir kër gi muy dégg yuuxoo yi benn saa yi bu ma koy tere léegi nag am na benn maire bu bu ma dëkkaloon maire boobu nag comme te lii la bëgg bàyyi ko rek mu def ko nit moom lu mu bëgg rek sa doom te muy lu baax rek danga ko siy jàppale. léegi nag su ma bëri ñëw indi benn saako ceeb si tournoi yi affaire yooyu dana ah waaw góorgóorlu rek am jom yàlla baax na dina baax mu jigi nag mu dem ba dama si ñaanal nag mu gën a xar sama tàng tubéy dem ba mu gënal ma sama métier bi ma nekkoon sax. waaw boobu moom man moom benn métier laa mos am sama àdduna muy maçon maçon moom boo mos dugg temps ndaw laa bëre bi rek moo ma ko yàqal nañ am na mhm. mbapat moom carrément da ko def. Mhm. Euh, mën nga ñoo expliquer seen mbapat est toj na mbapat yi toj na carrément. waaw victoire yi mu am si mbapat yi sax aw ma ko si arène bi parce que soo xoolee. man si mbapat laa gën a misé woon parce que damay liggéey ba wàcc dem bëri ji bëri ji bëri ji bëri ji ba ma neex ma daal ne bàyyi naa damay liggéey suba daal di arrêté mbapat moom wax dëgg fa dëgg neex yàlla fii sooy seet yëmbal fii ñetti yoon la ñu fi musa daan ñetti yoon laa musa daanu si mbapat kenn ki Matar Diouf la Matar Diouf kenn ki Birahim Nguer kenn ki euh, kii la benn rax Ousa Saw ñetti ñooñu ñoom Moussa daan si mbapat waaw mooy maam Biram loolu benn bi mbedd Fass terrain benn bi euh, Ndiaye Rose benn bi Yëmbal. Mhm. est-ce que amoon nga chance ni soit ñu ngi lëmbee lamb ñoo xamante ni dañ leen doon coow euh, tonnerre ba rek ñoom waaw fii ñoo jamono yooyu moom fii dañ doon dem di bëri ji ay euh, ay euh, fii euh, nu ñu ko si waxatee Tëngéej dañ doon bëri ji ay Bargny dañ doon bëri ji ay Géejawaay ay Pikine yooyu yëpp dañ fa doon dem di wëri ji mbopat bëri ñaari combat ñett daan plaisir boobu moo la doon neex ko waaw mais sama combat mu mujjee bàyyi mbopat sax Balla Gaye moo ko arbitré la fekk ba bayal bayal yëmbal fekk na mu bëreeg kii ba pare Saalum Saalum ba pare. waaw fekk na mu bëreeg moom. après si beneen dimanche bi xaw ma 15 jours bi si la ñëw arbitré ma sama combat boobu noonu. Mhm. Mhm. yàq Alioune Seye bëri ngeen mbapat wala maa Alioune Seye moom bëriwuñ mbapat. ngeen fekkati ci mhm. nañ fekkante si mbapat waaw. moom jàmbaar la jàmbaar la daal daan nañ fekkante bi mosu ñëw bëri moom franchement waaw. <laughs> mbapat dañuy dégg suñu papa Mbaye Gueye mu ne hmm, loolu mooy entrée en matière mbër bala ngaa dugg da ngay say mbapat ban combat moo la gën a marqué say mbapat ak ñaata lañ la euh, fayoon ci cachet boo xamante ne ci mbapat euh, tonnerre euh, loolu du ko fàtte. non sama première mbapat moom bu ñu ma fayee cent mille moom. Uh-huh. jour boobu dama kontaan. ndax lan ndax temps yooyu gars yi ay trente cinq mille lañ lay fay wala quarante mille wala cinquante mille. Uh-huh. léegi am na benn association bu doon tëgg benn mbapat ñëw fay ma cent mille francs jour boobu man dama kontaan boo ma tëddee sax nelaw ma nee naa cent bi ñi ñii liñ ma fay bëri na de affaire yooyu ma jënd ceeb jënd diwlin wax sama jabaru mag bi deel dee ñu dee ñu di suñ defal diwtiir rek suñ du jógee entraînement. Mm-hmm. affaire loolu moom mu gën a neexoon sama boo may bëre mbapat. Mm-hmm. Mm-hmm. combat moo bu ma gën a marqué mooy jour bu ma papa raxu papa saw bi daanee. jour boobu sama biir koñ la kilifa yëpp ñëw taxawal seetaan ñu bëri ma taxawal ñu déplacé wu pour mboppat bi ma ne ma ñëw xeeb booy bi lool ñëw ëñ ko di ko plaqué booy bu mbot ma ma daanu mais jour boobu moom jour boobu am naa lu ma métti lool si mboppat mhm. Euh, euh, wax dëgg yàlla la koy wax nga dugg ci làmb le 26 février 2006. Mm-hmm. nga dugg sa premier combat mag Saliou non non Saliou Ndiaye Saliou kii la nekkoon Thiaré Géej. sa premier combat. ko boobu moom xaw moon parce que bëggoon naa bëggoon naa bëre rek avance boobu dafa ñëw sunu saal sax Pikine dam ñibbi. waa ji ne comme euh, moom lañ jox combat bi te date bi daa jege du ko mën a bëre ma ne ko indil ma bëre ko. Mhm. ñu ne ma pare nga mën ne leen pare naa bu yàgg. léegi nag boobu ñoo ngi ma fay quatre-vingt mille. léegi avancement ñaata quarante mille comprendre nga léegi avance boo mu ñëwee ma daat koy jël ma ñëw wax waa koñ bi fekk boobu yaa xamte woon naa pour bëri esat quoi pour feeñ tele parce que ñu bëri dañ naan dañ doon ñaanal yàlla nga feeñ tele yàlla nga dem bay bëri si bëri yi mag yi mhm. boobu ma jëlee avance boobu mu ñëwee si kër gi yëmbal laa wàcc daal di daw yëmbal ba fii ak sama ñaxaay ma ñëw ne yaay am naa combat télé <laughs> bi moom bokkul ak combat ba pat quoi mu ne ma dañ nga wane télé ma ne ko waa bii moom dañ koy wane télé te dimanche bi di ñëw bis topp la. Mhm. tamit kontaan dem jàppale si jàppale ma si regroupement bi jour man li ma def si combat bi sax si ay pour samay gan rek moo ëpp li ñu ma fay. comprendre nga jour boobu moom jour boobu am naa lu ma neex loolu ci làmb te dem naa ba war a bëreel ki ma ki may bëreel. ñoo ngi toog si buntu stade bi di waxtaan. non xaw ma ko woon nag moom xamu ko woon man xaw ma ko woon. Mhm. naa mbër dangaa bëre si affaire yooyu nag waaw damaa bëre si biir mooy sama premier combat ga mu ne ko rek yàlla na ma ne ko waaw naa yees. ko ñaanal ko comme même li ma ñaanal. Mhm. na ko gaañ bi ah oui waaye tamit gaañ assuré ko rek yàlla na la yàlla may ndam affaire yooyu ñu ne waaw affaire yooyu. man daal maa dugg si biir stade bi commencé doxantu doon rek mën na sama ménagère mbër mi ma bëri ñëwagul mu ma sii moo ngi nee sol njaxas bi ma ne ko mais kay laa toogaloon suuf sànq ba léegi moom it wax ko ko ñu commencé romb indi beneen. waaw mu fasal ma kanam ma fasal ko kanam suñu rombee di tegante ay mbagg ma jóg ma ne ko gaayante du yomb nag moom instant bi dafa dafa dafa euh, dafa rus sax parce que liñ doon ñaanalanteeg yooyu noonu mën na ko tey du yomb. léegi nag si biir bëre bi nag ñu bëre maak moom bëre bu neex ma daat koy daan daan ko jële bu rëy jour bu jëli bu ma daan si euh, làmb jooju ba léegi daanagu ma ko nit sax mhm. waaw. sa premier mhm. mhm. daan dama bëri daan kontaan mais sama kontaan desoon na parce que maa ngi daan wax yaay dañ koy war wane tele mais maire jour boobu seetaan na ko ma ne ko mardi yi non non ma ko dimanche nañ ko wane télé. dimanche jot far yàlla jour boobu la Bécaye Mbaye doo ko ñëw si làmb di def émission kii euh, Bantamba. ba mu ko wanee na ne euh, combat bi waa ji mu ngi tudd ndagg ak kii comprendre nga. rek mu waa kër gi taxaw ñuy xool combat bi damaa daan rek mel na guddi kooku ko comprendre si laa bëri fii fees dell ak nit ñëpp ñëw maire yeeg ñëpp ñii di tëgg bool si bundu kër gi ne ma dina baax affaire yooyu jour boobu dama bég bëgg bu ma bëggee woon jour boobu maanaam gëj naa ko bëgg sax ndax kontaan waaw. Euh, sa premier mhm. su ma ko gëmee dinaa dem. parce mhm. bi sax dama parce que jamono yooyu man jàpp naa ne ku ma jàkkaarloo rek maa la mën. Mhm. dama doon bëre di daan di parce que boobu mun naa bëre am naa doole am naa technique te am naa fit. boobu mooy sama deuxième sama deuxième combat nest mm-hmm. boobu deux victoire rek. sama deuxième combat maa ngi doon bëri benn waay bu dëkk Mbour bu ñu naan Michel raxu Augustin bu Mbour la. daal di bëri moom dóor ko mu daanu. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. sama troisième combat bàyyi góora te jamono yooyu ñu ngi doon bugg a tëgg suñu combat mbapat sax yàlla dogalu ko. waaw bàyyi góor bu bu bu jàmm gën. ñu ngi doon bëgg a tëgg suñu combat maak moom yàlla ko parce que dañ doon wax zone bi maak moom ñoo fi dàq bëre léegi nag bi taxaw estade nag. léegi nag ma jël combat bi di ko entraînement entraînement yoo xamante ni maa deytaali mais man xamoon naa ne maa ko mën parce que xam naa li nekk ci moom ak li nekk ci man bokkul moom xam naa ni muy bëree waaw jamono li mu ko ëppee woon doole dafa bëri quoi. ma bëree ko daan ko jël bu rëy. waaw après ma bëree jugee si bàyyi góor a bëreeg Ndiaga Diouf ndem si yàlla si daat koy daan moom it daat koy dóor ba mu par décision waaw. sa premier grand combat yaakaar Elton la woon. Elton bu Guédiawaye. waaw maag moom boobu mu ngi bëre Assane Diouf. boobu sëñ Mourou Niang moo ko tëggoon. mu ne mën nañoo wax ni mu doon combat boo xamante ni. ci mhm. nga war a wane woon sa bopp. waaw parce combat bu am coow. Mhm. la woon. Mm-hmm. combat boo xam te ne ñëpp am na fu euh, xoolee. xoolee dëgg mën nga ah, boobu nga jëlee ñu ne Elton dafa diis waroo ko woon jël mais man xam naa ni jamono yooyu maa ëpp Elton technique mais maa ko ëpp technique. parce que man maa ko dàq bëre. parce que li ma doon bëre si mbapat yi moom bërewu ko ñoom ay complexe lañu woon su ñëwee si mbapat loolu day gérer te ñun dañuy ñëw def si li neen si biir géew bi wut ngemb foofu daal di ngemb te ñoom suñu ñëwee dañuy ngemb toog seen ci mukaay ba ñu woo leen ñuy doog a génn. dañ naan làqatu moo xam ne kii loolu noonu. maa ko ëppalee loolu day des si moom quoi. léegi euh, ñu teg suñu grand combat maa ngi moom esaat ma préparé ko préparé bu jaar yoon ñëw maa moom ñu bëre bëre bu métti. donc ñun moom dañoo ñëw rek dem bay dóorante rek jàppante mu wër ma nomba kërti kërti ba sonn mënumaa daan mais après dafa tafu sama wet rek ma daat koy mbot toog si kawam. làmb jooju dafa guddee woon sax ba dañu mujj pousse oto yi ba si géew bi daal di taal seen projecteurs yi ant buriaari jour woowu loolu lañu bëree grand ko am ay Balla gay moo koy noonu ay Balla Gaye ay igir géej waaye ñëpp koy indi waaw. nga man luy sama problème si làmb man du ma xam laa ni yow igir bii nga nekk wala mbër bi nga àndal wala kii moo la yor comprendre nga xam nga tubaab ku mu gën a ragal mooy ku dul wax te man du wax. xamuñu li ma bëgg xamuñu li ma bañ. xamuñu am ma la wax yi même Yékini bu mag sax bu may bëre Yékini deux. dañ ci ñëw Yékini junior dañ ci ñëw. mais <laughs> suñu waa boobu mu boobu ñu gisee Yékini dañ doon jooy. si combat boobu noonu loolu du dara si làmb. après ma daan Elton ma daan ko jëlee bu rëy ñëw zivilé grand combat après ma xëy tuuti suba dem Mbédéfaas. ñu naan ay 6 millions lañ ko fay 7 millions lañ ko fay. lekkoon ah, nga. barki salaatil fadel matu sa 1 million. loo ni. billaahi. boobu ñun ñun ñoo bëggoon bëre du ñu xool kase bi parce que boobu chaque jour ñoo ngi liggéey di am suñuy journée di mun a préparer suñu bopp mais ñun dañuy bëggoon bëre pour wane suñu bopp parce que làmb ji instant bëri noonu ay vedettes yoo xam ne dañoo bëgg ñëpp dañoo bëgg a jugandoo nga yëmbal bëri woon na ay vedettes yu bëggoon jugandoo ginnaaw ra comme comprendre géejewaay faas ñëpp dañoo bëgg a jugandoo yow li lay may chance rek ngay bëre chaque jour ñun loolu taxoon man mën jël ma boobu dañu doon dem kër promoteur sax comme nii ñu toog ñoo gaan jàppale ñu tëggal ñu combat affaire yooyu mooy léegi yow ma lay fay mun naa la fay temps ñu ne ko waa garaawul wàññi na si sax benn deux cent mille. léegi kooku fi mu toog moom dañuy génne avant jox ñu deux jours mu annoncé combat bi ñun boobu dañuy bëgg a bëre rek pour wane suñu bopp. waaw euh, mu daal di bëri Elton nag gars yi commencé bàyyi xel nag naan tonnerre tonnerre tonnerre ngee mu lu xonq li borom ngeem lu xonq li. gars yi yi moom lu neen lañ doon wax. non ñi xam tonnerre dëgg duñu wax loolu parce que dañuy xam ne tonnerre parce que chaque jour ak ay qualité yu muy génnee parce que ku ñëw seetaan entraînement Tonnerre man entre sama entraînement Pikine paa yu bëri dañ doon bàyyi seen yitte wala ñu toog si grand place ñëw di ma seetaan si sama contact jamono yi suma ma contactee ak Boy Sey day neex suma ma contactee Malal day neex su ma contactee Cek day neex ñu bëri la dañ doon dagg seen yitte di ñëw di seetaan. tey nan ko doon dundee waaw waaw temps yooyu moom franchement Pikine neexoon na lool jamono yi la Pikine neex. ne daa dem ba si biir commencé am ay yàqu-yàqu. dañ ci ñëw affaire mais ba nga jógee ci si ba mu jógee Elton après ma daal di taxaw tuuti ñu jox ma Pape Sène ma bëree moom. Mhm. Pape Sène ma bëree moom si benn. waaw ma bëree moom si benn spécial daal koy daan. da nga daam dem si spécial spécial bu mag ma daal koy daan. Mhm. noo ko daanee dama ko plaqué. ñoo dóorandi xeex bu métti mu topp xeex bi mun ma sëgg wàcc fi def demi flexion plaqué sànni ko quoi waaw. daal di ñëwaat jibile après si la ma dina dañ may joxaat kati deux ma ne nañ ñëw rek jamono yi sama combat doon woon yàgg quoi. Ah, ah, parce euh, at bi ah, benn at bi sax. parce promoteur day woo sa manager ma fekk maa ngi moom dañuy toog mu ne ma diw de sa combat la ñu wax waaye temps la si fay mu ne ko su la arrangé yow jël ko mu daan ne ah yaa wax loolu mu ne ko waaw jël ko mu daal koy jël jamono man bugg naa bëre di bëre parce que li nekkoon si man laa bañoon mu yàq wala mu bañ a ma bañ ko utiliser quoi mu ne ko jël ko jamono yooyu du ma xool kase bi du ma xool dara damay jël rek pour bëgg a bëre. après mu bëri kat yi jóg. après ma daan ko jëlee bu rëy moom it. Mhm. après ba ma paree si kati ba ma paree si kati Diop kii kati 2. Mm-hmm. léegi après père Gasson woo ma ne ma dinaa jàppale dugal si galaa bi ma ne ko voilà père foofu laa bëgg a wane sama ndax gis nañ ne instant boobu wax dëgg yàlla tonnerre. Mm-hmm. Pikine moom yaa ko moom moom. Mm-hmm. ndax gis nañ ne da nekk écrit Pikine. yow booy sëy. Cekk. Malal Ndiaye. yeneen booy yi soog a ñoom Cobra ñooñu. ñu gis ni mais nag da nekkoon au Père Gaston contacté la pour bëgg laa duggee ci classe. Mhm. mais classe boobu yéen ñaar nan nga def ba dugg ci classe bi ak classe bi ñaata lañ la fayal. non moom gars yi dañu doon sax bëriwul 10 millions lañ doon fay mais jamono xam nga pour nga am si benn 4 millions wala 5 millions sax day doon problème. ndax jamono gars yi du ñu faale mbër yu ndaw yi comme mbër yu mag yi rek lañuy ñuy faale ba tey ji nii sax gars yi mbër ndaw yi nii gars yi fay faale wuñ leen waaw. mbër mbër ndaw yi gars yi faalawuñ leen ay wecc la lañ leen di fay. ñu ne la 10 millions la ñuy def millions la Gaston wax mën na ko 10 millions ba na sooy ñëw léegi ba fa bàyyee avance soo ko bàyyee man dogoo naa yow. Ah. mu daal dama yaa wax lii mën na ko waaw mu daal di ñëw indaale avance. Mhm. boobu classe bi yaakaar naa la. mag Rong Mbalax Mamadou Diouf Sokaas euh, Moussa mhm. nan nga bi moom boo ci duggee gars yëpp lay waaw claf moom daa mën ba rek da daan neex léegi nag léegi moo war a bëre ji ñu sànni ma Kaolack nag léegi boobu mooy demee Kaolack ma ak Moussa Dioum seen combat ma ak Moussa Dioum bi. moom voilà voilà moom a daan sax mais daan bi xamul ndax man méttiwuma à pour cent parce que man maa ko képp di ko tànde benn prise. prise boobu ko xam làmb soo xoolee di nga xam ne kii su ma ko daanoon nii rek Sénégal lañ may tam dëmm. dama ko préparé woon xëcc ko ba mu ñëw comprendre nga door daal koy dóor tànk def rotation pour ànd ak moom mais heureusement ngemb euh, ki loxo mu ngi sama ngemb li looloo ko sauvé mais da doon ko doon ñàdd comme kuy rey xaru tabaski. comme affaire bi échoué. war affaire bi échoué. Mhm. bi nga bàyyi si xel si loolu noonu ma la wax. Mhm. waaw. Moussa Dioum daan mu moom sax boobu ma daanee gëmewu ko daa daw esaat bi yëpp daw daw mu gi fu mu taxaw yuur ndëndam fecc maa ngi toog nii si esaat bi di ko di ay rey dafa ma jàpp sax mën a gars bu leen jooy garaawul na leen dem ñibbi après gars yi taal si oto bi diggante Kaolack ak yëmbal moom mel ni Makka ak Medina sori si man lool. mbër bu musul ñam defet. mbër ñam defet waaw. après ma ñëwee gars yi ñii jooy fii ma soulager leen ne dama naan daan muy neex. jàpp ay doomu jaamu di leen doon ñuy daanu ñuy ma leen di mbot ñuy dem di dégg muñal kon tey su ma ko déggee ngeen xam ne sport moo demee nii. ma soulager leen daloo leen bañ dal. Mhm. nga am ci defet après boobu moo amee defet nag man xam naa sax li tax ma gën a ñàkk si si combat boobu noonu. Hmm, xam naa non affaire de musique jour woowu dafa maa laalaale ba am loo xamante ni sentir naa ko. ba mu ñëwee nag sa mel ne copain ma àndal mu ne ma sëñ bi affaire du entraînement kese wala am doole de il faut def ay ñaan. parce que gëmu woon moom dama doon ñëw indi sama ñetti biteel waa Pikine mbooloo sax dañ doon reetaan ñetti biteel yi <laughs> comprendre nga. Mhm. mais mujj gi sama ba benn combat ma ak Mamadou Diouf Sokaas ci sama deuxième combat ma indi ñaari saako ñetti saako. boobu dem seeti ñii man moom du ma jéggi du may jéggi bëriwul gars yi ñoo may demal rek. <laughs> Uh-huh. léegi gars yi ne voilà nii baax na si léegi nag ma daal di daan comprendre nga commencé xam ay affaire musique lu mu jëriñ si làmb nag. après sama combat ma Rock Mbalax am nga combat boobu tamit ma sonnoon si lool parce que. Rock Mbalax jàmbaar la. mu ngi woon Ikir mais xam naa ne xam naa ni qualité yi ñoo bokkul. si Ikir Fass kàngam du si ay Ikir mais écurie Fass ko écurie bu mag la mais comprendre nga mais ay kàngam du si écurie yi si nit ki lay doon. boo foog tegoon. non dama xam ne lépp rek parce que doole maa ko ëpp technique maa ko dàq bëre waaw. mu nekkoon. ko sóoraale si nit man kay xam la laay la laay la ñaanal yow jour combat bi da ñëw rek. waaw loolu la laay ñaanal mbër bi jour combat bi yàlla bu mu wax daa am blessure si tànk wala si oom wala si genou parce que roog ma la jàpp nañ kombaa bi deux fois mu naan mâchoire bi day métti daa dem France faju ci tappale dama ko doon gis man dama doon dugg biir town di ko gis ma bàyyi si biir. Mhm, yëpp nag ma boole ko waala ko nag mera mera laa ko jàppal ko ko nag moo tax jour bi dóoru yéene laa ko dóor sax. Mhm. dama ko dóor rek mu surux. ma xàcc ma xàcc beneen mu tëdd mu tëddal boppam tàlli kom basang waaw ah, dama ko kaaw. waa Igiréem waa Igiréem ñoo ko yóbbu. waaw gars yi ñoo ko yóbbu. Mm-hmm. waaw. nga jógee ci ma jógee ci rong bala après après bi daal di jeex Moussa Dioum si la génne. Uh-huh. waaw. après moo génn. après moo génn waaw. après classe bi mu commencé nag bàyyi sama métier ma tegee maçon bi na la xam ne maçon comprendre nga. àndul ak lii may def. dama doon empêché lu bari parce que ma liggéey wàcc ñëw sonn ma ne naa bàyyi bu suba du ma dem entraînement fekk maa ngi am lu bari loo xam ne maa ngi koy perte ma daal di tegee ma sonn bi dina la. Mhm. concentré wu si làmb ji nag di def ay ñaan def ay sarax léeg-léeg nga bëgg combat sax mu xaw a jafe nga def ay ñaan def ay sarax mu xëy na mu yomb. daal di yomb mu def làmb ji métier waaw. Mhm. boobu yëpp maa ngi Pikine mbooloo. Mhm. après boo ma jógee si kalaaf bi si laa ju bëri kii euh, Paul Maurice. Paul Maurice waaw Demba Diop waaw. mu nekk combat bu mag parce que. tey kii euh, Modou Lo ak Balla si la ñu waroon jàkkaarloowee eh, àdduna bi yëpp di ko xaar. mais sama combat ma ak Modou boobu moo daanee Yékini Junior lañ ko doon coow. Ah, dama bëre pour Maurice bëre. pourquoi boobu man déggoo ma man du ma xool kii wala kaa wala kale dama naan la manager mu ne ma naa ma ne su la combat bi arrangé jëlal avance bi. Ah, waaw waaw boobu démb jóob la woon eh, mu nekk combat bu mag ma préparé ko nu mu waree ñëw Paul Maurice indi fa affaire yu jinne bu nekk. mën na ko di def ay sànni ay jën ak di wut ay lu nekk mën na ko affaire du fii géew ba la. non non déggul ma man déggul ma man boobu ñu ma suba lañ may xarafal jour boobu laa mos tiit sama live ne ma suba tey jii suba da war a jong yi mun na toq sama nopp jour boobu laa mos a tiit mais à boobu moom mos tiit moom daf ma romb di dem. mais bëreeg séeréer ma non ma xam ne xamul tax bëreeg séeréer man dama jàng bëre si séeréer parce que sunu saal Pikine mbool dafa bëri woon ay séeréer waa séeréer si yëpp fa lañ doon nekk comprendre nga en plus tamit ma doon jàngal métier am koo xamante ni maçon la kii euh, séeréer la woon dafa doon yóbbu seen dëkk samedi ak dimanche dañuy nekk foofu di bëri rek si wetu dex bi comprendre nga da ngay dem ba yow après bëri séeréer dootul la quoi da ngay xam lépp waaw. Uh-huh. Mhm. après nga bëri pour Maurice Lo ak Balla Gaye doon jàkkaarloo. waaw mu nekkul combat mhm. lu mu def si yow. combat ba nga gisee Modou Lo ma wax billaay wallaahi dama cote sama entraîneur ni mooy simi sama daal mën na ko gisoo ñaar ñi taxaw si géew bi nii jour dina ñëw naa bëreeg ñoom fii ma taxaw nii di ma simi sama daal mën na ko ñaanal ma rek ma bëreeg ñaan ñii mu ne ma gaañ contraté sa combat bi mën na ko hey eh, combat bi dem na ba pare kii arbitre bi sifflé muy wuti fu mu tëdd. Mm-hmm. moo tax boobu pour ma jëlee sama tànk moom dafa tiit. dafa tiit sama entraîneur dafa tiit mais sama manager tiitul woon. pas le xam na ne man may bëre tànk xam na ni ku ma jaar si tànk moom bëre bi jeexagul waaw. ma bëre Paul Maurice ma bëre ma xam ne dafa gaaw te si tànk bi la jëm adduna bi yëpp da ngay romb maire sax mën naa la sa tànk yi la jëm. xam nga da ngay romb benn maire si marché bi sax mën na la méttul Paul si tànk yi la jëm mën na ko waaw léegi nag ma gën a nàmmaat tànk yi gën si di ci entraînement bu baax di si bàyyi booy ñu ma fa egg may def ay affaire moo tax boobu ma xaaree xaaree ñëwul ma sànni benn laaw su boo ma sànnee benn laaw rek si la ñëw si tànk bi ma daat koy jàpp bu ko yóotu ji ngemb ji mu mu may waaj a dëj boobu may waaj dëj ma futti ko nii rek mu dem ba di ma plaqué ma def benn réaction